tukkee ci ku am solo muy kenn ci mag ñi àndoon nag Cheikhul Xadim ñu koy wax Serigne Abdoulahi jaane mag ñi nag boo gisee ñuy faral di indi seeni xikma ak di wax di nettali tuuti ci seeni jaar-jaar bëgg ñu roy leen ci pas-pas ak pëseef moo koy waral euh, waxam ji nag ñoo ngi ko toxalee ci sunu xarit sëriñ Mouhamadou jaane moom sëriñ Fallou Diané moom sëriñ Abdoulahi jaane comme ab sëtam moo ñu baaxee waxtaan wi te doon sunu wëllëre yàgg-yàgg ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér di ñaanal njaboot ko ñëpp sëriñ Abdoulahi Diané euh, moom mm, mi ngi mi ngi nekkoon dëkk bu ñu wax Ngaañax Jeng ca Njàmbur ci jamono bi sëriñ waa nekkee ci géej gi ngir tënk rek niti alquran nag lañ maamam bokk na ci ñi doon jàppale sëriñ Muxtaar Ndumbe ca kokki ca daara kon sëñ Abdoulahi Diané ku doon alquran la doonoon nitu alquran waaye jamono bi sëriñ bi nekkee ci géej gi nag mu nekk njàmbur ci daara yi ku ñuy wax sëriñ moo ko jeng ñu ko daan wax kaangoom njàmbur fële tëdd guddi moom moo ko nettali nee na am lu ñëw fëgg ko mu ne lu dul fen wax naag man ne ma boo bëggee mucc bu ëllëgee toppil sëriñ bi ci géej gi boo bëggee mucc bu ëllëgee toppil sëriñ bi ci géej gi wax ko ko ñetti yoon mu daal di yeewu julli ay rakka def ay wérdam dem daldi tëddaat loola loola fëggati ko ne ko Abdullahi boo bëggee mucc bu ëllëgee toppil sëriñ bi ci géej gi waxati ko ñetti yoon mu daal di yeewu bi mu jógee nag loolu def ko xaal mu daal di jël ab deram dox ba génn dëkk ba eh, daldi toog ci diggante yaari geer yaari ngeer nee na nee na wàcc na fa ab kaamil boo xam da ko tari julliwaat fa ay rakka daal di jàpp ci ñaari ngeer yi bu ci nekk mu jàpp ci benn loxoom ne leen ñaari ngeer yi dama bëgg ngeen seereel ma ne eh, eh, sëriñ bi ci géej gi jëmm ji ci géej gi jox naa ko sama bopp àdduna ak àllaaxira bu delsee ak bu delsiwul bu ma fi fekkee ak bu ma fi fekkul wax na ne bi sëriñ bi jógee ci géej gi 1902 ci la ko fekk dëkk bu ñuy wax caafura Caafara Sylla muy kër sëñ Saafara Sylla kër sëñ Muxtaar Sylla bi mu jébbuloo ci sëriñ bi ba noppi sëriñ bi nee na ko sa seere sa agsi na maanaam ngeer yooye mu defoon seere sëñ bi ne ko keroog la sa seere sa agsi ci man 1902 loolu nag bi la sëriñ Tuubaa lépp daraan wax moom dégg naa ci sëñ Abdul Xaadir kenn ma mu ne sëriñ bi jamono bi mu nekkee njaareem nga xam ne xaw naa xat daana wax waa kër gi muy waa barsaq daa leen wax na bu ngeen ma soxlaa te fekk ma jàpp li ngeen ma soxlaa wax dee leen ko yóbbante ndab yi ñëw ci man nga xam ne ni waa barsaq muy soxna yi daanañ ko def ku ci masaana am soxla ndab yooyu ñu daan tibb xéewal yi di ko dugal ci kër sëñ bi mu ñëw ci sëñ bi moom la yóbbante seen soxla te sëñ bi dana leen ci tontu ndax ndab la dana ko ko wax sëñ bi Sam Abdou Khadir it neex na jamono bi sëñ bi nekkee njaareem eh, mag ñi amoon nañ pas-pas bu toll nii boo gisee ñu daan def bu ñu ñëwee ñu ci bari seen addiyee dañ daan ñëw rek jël ko daal di dem euh, dafa am bis koo xam ne ni dafa ñëw sonn lool ci bëgg bëgg xante gis sëñ bi ngir jox ko addiyam sëriñ mi ne ko sànni ko foofu rek te dem fii dara du fi jaawaloo dara du fi réer fii dara du fi jaawaloo dara du fi réer moo tax mag ñi amoon pas-pas bu ñuy indi addiyee sëñ Tuubaa dañ ko ko jox rek wala ñu sànni ko fa rek dem ngir xam nañ ne dana ci jot koo xam ne nii bis yi ak weer yeeg waxtu yeeg yëpp dañ koy seede eh, defe naa garab yi dañ koy seede moo tax sañ Musaa Ka naa ko keroog la bis yeeg weer yi ak saaxaati sobbi ko ay jëmm di xaraadaati di ko dikkal te naa ko noo lay seere yowmal xiyaamati lii lay kabiire sëñ Abdoulaye Diané nag Euh, bi sëriñ bi demee gànnaar it dem na fa ci ndigalam nekkoon na fa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi daan jàngaloo alquran mook sëriñ Malick Basine si ak sëriñ Mor si ak ñeneen wax na ne am na bis ñuy defarlu ñuy defaraat kër ga ca gànnaar ñu koy def ab làkku euh, caxat mooy làkki dóor dóor yi ñuy def làkki ngeer waaye boobu ngeer amu fa caxat lañ ko doon def neen kaamil bu ko sëñ bi doon jàngu la ba mu jàngee ba noppi daal dem ci liggéey ba bi sëriñ bi laajee anamu ñu ne ko ma ci liggéey bi sëriñ bi doxal boppam bu fekk ko fa ne ko Abdullahi bul defati lu dul ndigal bul defati lu dul ndigal ndax fii ndigal rek fii jariñe ne ko yow kat sa borom damaa xamal ne bu ma la def loolu jàngal Qur'an te loolu sëñ bind na ko bu leen def lu dul ndigal la taf'alu shay'an li xayril isni fal isnu shartun fi qabuli kon loolu lañ ci doon tënk sëñ Ibrahima Diané ana li mu wax xikma bi mu wax mooy nee na mënees naa ne ci sa bopp ba sa soxla faju waaye mëneesuta ne ci sa bopp nag ba aajo faju aajo faju moom nekkal yàlla wala nekkal waayu yàlla rek moo koy maye soxla su nag mooy nga am soxla fexe mu faju aajo ju faju nag mooy lépp loo aajoote wala loo aajool nit sax loo soxla nit sax mu faju te doo ca sonn kon buñ bëggee sunu aajo faju nañ nekk ci Sëriñ Tuubaa mag ñi foofu lañ nekkoon ñoom ñëpp loolu leen yóbbu woon ci sëriñ bi waaye boroomi cër lañu woon moo tax sëñ Moussa Ka naan ne ci sa bopp ak ne man ak ne man bokkuñu ak pay yéen murit yi fii zaman te loolu sañ Tuubaa ko waxoon mu woy ko ku ne sa bopp ku ne ci boppam ñu balaak sa bopp doon yaawu nga fareek sa yëpp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niiraani ku ne ci man ma ne ci moom te yor ko àdduna ak laaxira far defar ko kon nañ nekk ci Serigne bu ñu bëggee mucc àdduna ak bu ñu bëggee defaru àdduna ak alaxira yàlla na suñu borom defal tawféex te taas ñu ci barke mag ñi te wàll ñu seen pas-pas ya ak seen pëseef ya ndax ci lañ noonu la ñuy jëriñooti Cheikh al Xadim ñoo ngi soññaat mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci liggéeyu daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir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 in uridu illa al islaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala